Bichri Academy ana mooy Bichri Academy Bichri Academy mooy émission bu yees tàq bi leen Bichri TV indil ngeen ci ànd ak àllarba bu jot ak yaa Seyda Aminata Silla ci biir émission bii di Bichri Academy yaa Seyda soxna Aminata Silla dina ci ànd ak yéen ci ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi di Madinatul mën a Munawwara dina ci waxtaaneek dunduk yonent bi salallahu alayhi wa sallam jaar-jaaram maanaam siiratu nabawi salallahu alayhi wa sallam waaye du ca yam ci pàcc bu ñaareel bi dina leen indil li nga xamante ne nii moom moo di idaara idaara nag buñ ko waxee mooy soxal képp koo xamante ne nii da nga bëgg di jàng arab wala alphabétisation arabe maanaam fer iji ci ñaareelu pàcc bi di idaara képp koo xamante ne nii fer iji daf laa soxal ngir nga mën a lire bu jàng li nga xam ne mooy alphabétisation arabe yaa Seyda soxna Aminata la dina la ci jàppale ba nga mën njàng njàng mu wóor bismillahi rahmani rahim iqra bismi rabbika alladi xalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم